bëree bëri day bëree arme bu ngeewal daan la Jamax daan na ko Jamax daan na ko Jamax daan na ko Jamax daan na ah, wat njaax njaax njaax dañoo njaax njaax vaar mënul vaar mënul vaar <laughs> mënul dem nañ vaar dem nañ vaar <laughs> vaar lañ jëm <laughs> <laughs> mënu dem nañ vaar dem nañ vaar <laughs> vaar lañ jëm <laughs> vaar mënu dem mënu jaa jëm kañ kañ jëm nañu xool vaar nañ ne la ñu xool vaar vaar ay waay laa bu neex na waay lii rek moo ko mën a avancé loo dem xool vaar caatu ngéwél ñàkk na arme bu ngéwél ñàkk na oh alaaji biir bismillahi door maam góor njaay sëtub maram jéen bàyyi maam maram njaay réew maa ngi may soow te ko mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu maa dalee booba tuuti booba su ma dalee damay jooy waye legi nu ma dal damay xeb lay bari te nay baree bari nay baree bari te nay baree bari ndaanaan laa ñaar